benn bis yeesu dajale fukki taalibe ya ak ñaar jox leen doole ak sañ-sañu dàq rab yépp ak di faj jàngoro yi noonu mu yónni leen ñu yégle nguuru yàlla ak di faj jarag yi mu ne leen bu ngeen di dem bu leen yóbbaale dara du yet mbaa mbuus mbaa mburu mbaa xaalis bu leen yor it ñaari turki kër gu ngeen dugg dal leen fa ba kere ngeen di fa jóge fépp fu leen nit ñi gàntoo génne leen ca dëkk booba te ngeen yëlëb seen pëndu tànk ngir seede leen seen réer noonu ñu dem dëkk ak dëkk di fa yëgle xabaar bu baax bi tey wëral jarag yi bi erod boroom diwaanu galile déggee li yéesu ak ay taalibeem doon def lépp mu jaaxle ndaxte amoon na ñu doon wax ci mbiru yéesu naan yaxya moo dekki amit ñuy wax naan iliyaas moo dellusi ñeneen naan kenn ca yonent yu jëkk ya dekki waaye erod ne yaxya man mii maa daggalu boppam kon kii may dégg ay jalooreem mooy kan noonu mu koy fexee gis bi dellusee ñu nettali yeesu lañu defoon lépp noonu mu yóbbaale leen ñu sori nit ñi jëm ca dëkk bu ñuy wax betsayda bi ko nit ñi yégee ñu toppi ko yeesu teeru leen di leen wax ci mbirum nguuru yàlla te di wéral ñi ko aajowoo ca ngoon sa fukki taalibe ak ñaar ñëw ci yeesu ne ko yiwil mbooloo mi ñu dugg ci dëkk yi ak àll bi ko wër ngir am lu ñu lekk ak fu ñu fanaan ndaxte fii àllub neen la waaye Yeesu ne leen jox leen leen lu ñu lekk ñu tontu ko ne amuñu lu dul juróomi mburu ak ñaari jën xanaa ndax ñu dem jëndal mbooloo mi lu ñu lekk ndaxte lu war a mat juróomi junniy góor a nga fa teewoon Yeesu ne taalibe ya nee leen mbooloo mi ñu toog def ay géeyu juróom fukki nit taalibe ya def ko loo nit ña bi loolu amee Yeesu jël juróomi mburu yi ak ñaari jën yi xool ci kaw gërëm yàlla ba noppi mu damm leen jox taalibe yi ngir ñu seddale ko mbooloo mi noonu ñépp lekk ba suur bi ñu dajalee desit ya ñu feesal fukki pañe ak ñaar benn bés Yeesu beddeeku mbooloo ma di ñaan taalibe yi nekk ci wetam mu laaj leen ne nit ñi ku ñu wax ni moom laa ñu tontu ko ne am na ñu naan yaa di Yaxya ñeneen ne Iliyaas ñi ci des ne yaay kenn ci yonent yu jëkk yaa dekki Yeesu ni leen yéen nag ku ngeen ni moom laa Piyeer tontu ko ni yaa di almasi bi yàlla yónni noonu yéesu daldi leen dénk tere leen ñu wax ko kenn teg ca ne doomi nit ki war naa sonn lu bari sëriñ su mag sa ak xutbakat ya dëddu ko ñu rey ko mu dekk ca ñetteelu fan ba noonu yeesu ne leen ñoom ñépp ku bëgg aw ci samay tànk na bàyyi boppam gàddu bés bu nekk bant bi ñu ko war a daaj door topp ci man ndaxte koo xam ne bëgg nga rawale sa bakkan dinga ko ñàkk waaye ku ñàkk sa bakkan ngir man dinga ko jotaat ndaxte moom àddina sépp lu mu jariñ nit su fekkee ne dafay ñàkk bakkanam walla mu loru ku ma rusa faral te nanguwul samay wax doomu nit ki dina la rusa xam bés bu ñëwee ci ndamam ak ci ndamu baay bi ak lu malaaka yu sell yi dëgg maa ngi leen koy wax am na fi taxaw ñoo xam ni duñu dee gisuñu nguuru yàlla gi bi ñu ca tegee luy tollook ayubés ginnaaw bi yéesu waxe loolu mu ànd ak piyeer yowaana ak saak yéeg ca kaw tund wa ngir ñaan bi muy ñaan xarkanamam daldi soppeeku ay yéreem weex tàll bay melax am ñaari nit di waxtaan ak moom mu yonent yàlla musa ak iliyaas ñoo feeñ ci ndamu yàlla di waxtaane ci demu yéesu gi muy àggale yenam ci yerusalem fekk piyeer ak ñi mu àndal doon gëmmentu waaye bi ñu yeewoo bu baax ñu gis ndamu yéesu ak ñaari nit ña taxaw ca wetam bi nit ñooñu di sori yeesu piyeer ne ko kilifa gi bég nanu ci sunu teew fii nanu defar ñetti mbaar benn yow benn musaa ak benn iliyaas fekk xamul la mu doon wax bi mu koy wax niir ñëw muur leen taalibe yi daldi tiit bi leen niir wa ëmbee noonu baat jibe ca niir wa naan kii mooy sama doom ji mafal fal leen ko bi baat bi waxee ba noppi des fa taalibe ya noppi bañ kenn ca jamono jooja lañu gisoon ca suba sa yéesu ak taalibe ya wàcce ca tund wa mbooloo mu bari ñëw di ko gàttandu nit xaacu ci biir mbooloo mi naan kilifa gi maa ngi lay ñaan nga seet sama doom ndaxte moom képp laa am léeg-léeg rab jàpp ko mu daldi yuuxu ca saasa rab wi di ko sayloo gémmiñ gi di fuur du faral di génn ci moom te dina ko sonal ñaan naa say taalibe ñu dàq ko waaye mënuñu ko yeesu tontu ne yéen nit yi jamono ji yéen ñi gëmadi te dëng ba kañ laa wara nekk ak yéen te di leen muñal indil ma sa doom bi xale bi agsi rab wi di ko daaneel ci suuf muy say waaye yéesu daldi gëdd rab wa wëral xale ba daldi ko delloo baayam ku nekk waaru na ndax màggug yàlla bi ñuy yéemu ci li mu doon def Yeesu ne taalibeem ya déglu leen bu baax lii ma leen di wax dinañu jébbal doomi nit ki ci loxoy nit ñi waaye taalibe ya xamuñu kàddu googu yàlla def leen nëbb li muy tekki ba ñu bañ koo xam te ñimuwuñu ko laaj yéesu werante am ci biir taalibe yi ñuy laajante kan moo gën a màgg ci ñoom yéesu mi xam seen xalaat jël ab xale teg ci wetam ne leen ku nangu xale bii ci sama tur man mi nga nangu te ku ma nangu nangu nga ki ma yónni ndaxte ki gën a woyof ci yéen ñépp kooku moo gën a màgg bi loolu amee yowaane jël kàddu gi ne kilifa gi danoo gis nit kuy dàq ay rab ci sa tur ñu tere ko ko ndaxte bokkul ci nun waaye Yeesu tontu ko buleen ko tere ndaxte ku la sotul far na ak yow bi jamono ji jegeñsee ji yeesu wara jóge àddina dem asamaan mu ñu ci dem yerusalem noonu mu yebal ay ndaw ñu jiitu ko ñu dem nag dugg ci ab dëkk ci diwaanu samari ngir wutal ko fa fu mu dal waaye waa dëkk ba nanguwuñu ko ndaxte mu ngi jublu woon yerusalem bi taalibe yi tudd saak ak yowaane gisee loolu ñu ne boroom bi ndax danga bëgg nu ne na safaras asamaan dal ci seen kaw faagaagal leen waaye yeesu wëlbatiku yedd taalibe ya ba noppi ñu daldi dem wuti beneen dëkk bi ñuy dem am ci yoon wi ku ne yeesu dinaa la topp fépp foo jëm waaye yeesu tontu ko ne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 sang bi dinaa la topp waaye may ma ma jëkk tàggu ji sama waa kër yeesu ne ko kuy ji di gestu yeyewul la liggéey ci nguuru yàlla